ak suñu mag ñu baax ñi nekk ci biir mooy ñoom yaa Alimatu Mbaw yaay ñoom Pétay ñoom sëñ Abdoulaye Diop ak ñoom Paate ak ñoom ñëpp rek waaw loolu alhamdulilah sant yàlla la parce que euh, fondation bi kon ñu ko waxee woon daaw mu ngi jógee ci idéewu suñu benn mbokk mbokk taalibe bu tudd Paate ñu gën ko xam ci moom moo am initiative uh-huh. dem waxtaan ci ak maam Ousmane Sy yàlla dogal bi ci waxtaanee ñu jox ci ndigal euh, ñu defoon suñu première édition daawaati jéeg ñu dem rek def benn prise de contact waxtaan ak kilifa yi fa ne amoon lu tuuti lañ yóbboon ñu amoon ci ci doole dañu ko ko dem yóbbul ci ci ci ci ci ci gàmmu ci pèlerin yi ñëw foofu ci gàmmu yàlla dogal daaw ak daaw jéeg aussi tamit ñu defaat lu ñu mel ren aussi lii ñaan yàlla rek li ñu defoon daaw ren àpp nañ ñi xaw nañ def tuuti amélioration ñaan yàlla déwén aussi ñu ñu gën a yokkaat amélioration yi du lenn lu dul mooy euh, duñ def constat que ni ñun ñëpp euh, gàmmu Jaksaaw euh, ci gàmmu ga maanaam fa fa fa gàmmu gay amee kii du fa am décoration du fa am léegi nag ñun ñu ne ñun ñun ñun ñu chargé wu décorer tente bi mooy benn amélioration bi am beneen amélioration bi mooy gis nañu ne gàmmu saal bëri woon na buñ ñu fa daan dem du ñu ay ndox ndox bi nag vraiment am na solo lool lool lool mais ñu ne euh, ñëpp bu ñëpp ñëpp yóbbuwee ndox ni ñuy yóbbu ndox ñi tam yóbbu leneen ren ñu jël jël gën xeetoo rek ganu sëriñ bi bu ñu ñëwee seen wàllu naan muy boisson yeex ñu jël jox leen leneen nag moom defoon nañ ko daaw mooy jël yére yi ñu amoon ak euh, dàll yeeg téere yeeg yóbbu ko tam daara ji nekk foofu loolu daal moom moo moom ak yokk aussi quantité wu café gi ñu doon joxe ci ci ci guddi gàmmu gi parce que seet seet lañ ni guddi gàmmu gi day day am benn moment boo xam ne nit ñi dañuy xëy dañuy xaw a jàppante gëmmantoog yooyu ko defee ñu def café jox leen ko ndax nit ñi mën a nit ñi mën a dellusiwaat daal